Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, la police et la gendarmerie, avec les services Sénélec, Sénatel, santé et hygiène, ak mboolem presse bi fi ñëw yëpp ñu ngi nuyu mbokk yëpp. ñëw fii monsieur le gouverneur gannaaw bi ko yëgle président de la république. sont prévenus l'ensemble du gouvernement. Monsieur le gouverneur, nous les remercier de la réception du comité d'organisation du centenaire Magal Daaru Xudoos fii ci gouvernance ñu ñëw fi ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbakke al xalifatul am ak ci tur ndigalu sëriñ Ahmadul Maxtaar Mbakke xalifa Daaru Xudoos monsieur le gouverneur màggal Daaru Xudoos yàgg nañ kaa def waaye dafa am beneen cachet boo xam ni dafa dafa am importance mooy dafa dajeek centenaire téeméeraat du caaxaan te màggal gi tey du sëriñ Mountakha ki mi nga xam ne mooy xalifa général de moo jël engagement que màggal gi nii lañ ko war a feete ndax Serigne Touba cent ans ba mu jógee ba ñu ko jógee Dakar indi ko fii dem ñaanoon doomam ji waxoon Cheikh Moustapha ne bis bi ko gënal ci àdduna mooy bis bi muy daje ak boromam te bis boobee moo am cent ans loolu tax ñu bëgg koo marke cent ans yi sëñ xam mu Mbacké mi xalifa bi jël ci engagement bu rëy dañ koo war organisé no xamni Sénégal gep ak aduna bép dañ ko dañ ko yëg loolu moo tax mu jël 100 millions départ jël 100 millions teg ci table ne lépp lu war ci màggal da ngeen ko ci def kon kooku bëgg na màggal gi ñu vulgariser ko xamal ko ñëpp porte ko à la connaissance de tout le monde sëñ Amadou Makhtar moom it engagé wu ci comité bi yépp ku bokk Serigne Touba rek dem nañ ci yow ñoom ñëpp ñu jël engagement ku ne am ci gis-gis am ci engagement pour la réussite du Magal kon monsieur le gouverneur par votre gouvernance li fi wax yépp dañoo bëgg mu amaat beneen diligence ndax lu ne bis bu ne ak bis bisam màggal yi fi daa jaar yépp màggal yu rëy lañ yu baax lañ ndax waaye nag tey dafa am beneen beneen caché kon loolu lañ bëgg mu mu mu am beneen taxawaay daal au niveau de toutes les tous les euh, euh, services tous les services de l'État ñu ñu taxawa ci daan euh, ñu bëgg tam màggal gi ñu koy lancé murit yi nekk ci àdduna bi yëpp biir réew mi ak bitim réew ak jullit yëpp ki nga xam daal liggéeyal borom ba mu sant ko gërëm ko may ko li mu koy may ca bi bi ca ba mu ko maye daf wax na ne ijal ruju'i ila xawmi saadatina

ñu am texe fii ci àdduna am texe ci àllaaxira kon kooku bu ko yàlla defee mu ñaanoon bisam boobu bi ñëw dajeek borom muy dem ba am téeméeraat ku def sénégalais wala ngëb julli rek war nga ci am beneen taxawaay boo xam ni parce que Sëriñ Tuubaa c'est pas c'est universaliste du du appartenance mouridisme wala ñu mel noonu Sëriñ ñëpp a ko moom ndax l'islam la fi nekkal l'islam loolu liggéey ak liggéey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu monsieur le gouverneur mooy mooy mooy mooy bis bi ñu ñaan daayira yëpp nag muy daayira Serigne Touba yëpp ak daayira Cheikh Moustapha yëpp daayira Serigne Bara yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ñu ngi leen ñaan ñu lëkkaloo xam ne mu Mountakha moo joxe ndigal ci bis bi ñu màggal ak sëñ Ahmadou Makhtar ñoom ñëpp daayira bu ne fa nga nekk ñëpp ak dëkk bu mën a doon muy États-Unis France Italie Espagne tout partout dans le monde fu fi daara bi Serigne Touba nekk nga lëkkaloo ak daara waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñu def benn bloc màggal ko organiser ko noo xam ni daaw ñu ko organiser loolu mooy carte bi ñi nga xam ne njaboot sëñ Bara gépp ak njaboot Cheikh Moustapha gépp ñoom lëkkaloo nañ waaye nañoo lëkkaloo waat ak njaboot Serigne Touba kon daayira yi nekk ci biir réew mi ci daayira Serigne Touba ak daayira eh, sëñ Mourou Moustapha yi ak waa xibaay ak waa village yi ñëpp ñu lëkkaloo nekk benn taxaw taxawaay boo xam ni kenn lekk lañuy jëmmal muy sunu maam Cheikh Mahmoud Moustapha ndax moom ci boppam ku ne xam nga ne li Serigne Touba bëggoon lépp defal na ko. Cheikh Moustapha am gis-gis vision sens d'organisation fexe na ba jël baayam andi ko Touba ci kenn yëngu kon réussir na point boobu bi mu ko ci tegoon moo ne ko la construction de la mosquée de parce que euh, sëñ bi nee na woon sëñ Touba waxoon na ko euh, l'éternel m'a donné pour l'éternité un édifice qui se dressera jusqu'au paradis waxoon Cheikh Moustapha bu ngeen ko tabaxut bu ngeen farluwut ba tabaxuleen ko dana am ñeneen yeneen être yu ko tabax yeneen être yi nag y a pas un un adjectif qualificatif ay être mën na nekk être bu la ca topp humain wala ange wala leen dana daal yeneen être danañ ko tabax

ak ña koy liggéey loolu lépp tubaab bi dafa jàppoon ne c'est impossible waaye sëñ bi fexe ba loolu lépp am na beneen bi ci def dafa na ko woon sama njaboot gi na nga fexe ba dajal ma ko ku gis xam ne Cheikh Moustapha njabootu sëñ Touba gépp dajal nañ bañ nekk benn nekk seenub taalibe ndax seen baay liggéey ko kon Cheikh Moustapha ku mat a wane la ku mat a wax la ndax kat tey bu murid demee muridis bu demee ba àgg fii ndax nag sëñ liggéey liggéey waaye lu ñuy organiser rek ci yoonu murid rek ci sëñ Mourou Moussa la départ kon nag am nañ jukkal tey jii sant Serigne Touba ci bis bi ñu koy defal waaye na am nañ devoir am nañ devoir ñu remercier Cheikh Moustapha wan ko wan ko nit ñi ndax xañ na ñu bari ñu ngir dudd ci année ay année soixante dix quatre vingt jëm jëm léegi xale yooyu mën nañoo bañ a comprendre Cheikh Moustapha mën nañoo bañ a xam course ci Cheikh Moustapha waaye nit ñi fi nekk te xam li mu liggéey ndax nag àdduna moom bala ngaa xam lan mooy njariñu lii fa mu départ précurseur yi war nañ leen xam kon nag monsieur le gouverneur loolu la ñu euh, sëñ boo xam sëñ Ahmadou Makhtar ñu ñëw ñu dolli ko monsieur le préfet ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu euh, ca ca euh, sous préfet ñu ngi lay nuyu ci di ñaan à trois jours ou à deux jours di di màggal bu mënee am une petite réunion avec une réunion d'évaluation xool ba xam hmm, les décisions prises kii kii bi yàlla def na matal nañ ko wala mataluñ ko lu ci matutam ñu xool buñ ko mënee mottali ñu def ko bu ko mën nag ndax nul n'est tenu à l'impossible kon monsieur le gouverneur loolu daal la comité bi àndoon ñëw fii pour wax ko bëgg tam ñëwee taxawaay boo ci amoon démb nga gën bu ci am ndax bis bi dañoo dañoo ñor te ñun bu ñu ñoroon sax dañu gën a ñor ndax sëñ mu taxa engagé woo. màggalu ren bi dafa am benn cachet particulier moo coïncider ak centenaire bi moo tax dañuy ñaan rek seen service yëpp ñu intégré ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ war am ci bés bi di seede rek mbooloo mi tamit ndax euh, ñi ngi bëgg a yàgg si jaare seede service yi nga xam ne ñoo ñooy impliqué wu ci cérémonie religieuse yu bari mën nañ seedeel quand même seen taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci secteur yëpp la waaye li nga xam ne moom mooy liggéey dañu koy sas toujours muy kilifa yi nga xam ne ñooy autorité centrale ñoo ñuy demandé que ñuy indi yenn taxawaay ci événement religieux yi moo tax suñu jubsee rek comme ni ñu koy defee ni ñoo daje yéen waaye wax nga ko incha allah rabbi ren dinañ ci intégré aspect boobu te tamit dinañ ko yëgal kilifa yi ba tax na nag lépp loo xam ne wàllu secteur la bi nga xam ne am nañ ci yaakaar ne ah foofu ngeen ñuy xaar pour ñu dugal seen loxo donc foog naa partagé nañ ko te c'est de service yi ku nekk wax nga li nga xam ne mooy matuwaay yi nga xam moom lañ jëm ci tënk rek ci ndaje bi ci wàllu wër-gi-yaram on naa juróom-ñaari postes médicaux avancés nag yi nga xam ne day am ñaari fan balaa màggal gi ak ñaari fan après ak ñeenti ambulance mais loolu également ñu doon ci tamit dotation en médicament ndax mooy gunge prise en charge pèlerin yi loolu foog naa direction régionale de la santé dina jël matuwaay yi pour mun koo taxawee incha allah ndaxte nag lim bi mën na màggal comme ni nga ko waxee. lépp loo xam ne ñu ko doon def ci màggal yi mun naa am ren mu am yokkute kon loolu tamit foo naa ne su dee màggal gi dafa am innovation bu bees il faut que aussi service yi jéem a def jéego bu toll noonu pour mën a fekk si euh, dayo dayo màggal bi su dee wàllu hygiène loolu euh, service d'hygiène dina ci lëkkaloog euh, mairie pour désinfecter yenn bërëb yi muy kër yi ak yenn pénc yi ku ne setit wax nettoiement donc ngeen jàpp le 19 mu nekk journée phare bi nga xam ne Sonaged dinañ ci dugal loxo indi permis mécanique ak ay camion ci wàllu assainissement donc ONAS engagé wu na pour indi juróomi camion bilan si diiru ñeenti fan ak ay toilettes mobiles waaye yi nga xam ne moom lañ lim léegi secteur dafa am loo xam ne commune bi da ci am compétence te ñiy rafet bu baax teewaayu la maire suñu Abdoulaye Ka ak engagement yi nga xam ne jël na ko ci wàllu hygiène ci wàllu également assainissement ak wàllu cadre yi maanaam jumtukaay yi nga xam ne mairie am na ko dina ko lëkkaloo ak li nga xam ne moom la état am ñu defandoo liggéey bi benn ndax lépp benn objectif la ñu fexe ba màggal gi euh, gën na jaar yoon donc état ci loolu lay liggéey mairie également loolu mooy objectif am donc comité d' bi ngeen tegit yaakaar nañu ñoom ñëpp ñoo bokk kenn ku nekk lan am da nga ko ci boole rek su ko defee liggéey bi gën a ñëw moo tax ñii ñaan nag am na si loo xam ne taalibe yi dinañ ci dooleel service yooyu soo jëlee ci wàllu nettoiement donc dinañ soxla ay limu doomu aadama yu takku kon loolu également ñi ngi ñaan daayira yi ah sëñ bi ñu wax ak ñoom ak taalibe yi kenn ku nekk génn ci bés boobu ànd kook mairie bu Touba mosquée ànd kook Sonage ñu boole nettoyer également nettoiement donc ville Sainte de Touba su dee wàllu ndox loolu foog naa euh, cam ci camion citerne la ñuy daagaan au niveau de Diofior bâche yi dëgg la sëñ Ousmane wax na ko dina am loo xam ne dina jàppandi waaye du tere tamit dañuy daagaan rek su bee ñëwee baax na su ñëwul maintenant ñu soog a jël yi nga xam ne moom la comité d'organisation bi euh, am ndax tamit du doy donc wàllu ndox Touba dëgg la am na ci nag ay jéego am fan yi ndax situation bi gënoon a tàng bi mais fi mu ne nii am nañ yaakaar ak forage bees ñu def. jafe-jafe yi mën na gën a wàññeeku waaye nag lu muy bu gën moo ñu accompagner li nga xam ne moo fi ne kon yaakaar naa ne bâche à eau du doy camion citerne également doy tax day gën a tax rek euh, ndox mi bañ nekk jafe-jafe ci màggalu Daaru Xudoos wàllu énergie Senelec yaa gën a di ci liggéey mooy surtout rek ñu fexe ba courant bi bañ a coupé et ñaanoon ko su amee groupe électrogène bi nga xam moom la ñu war a indi mun na jël le waaye wàllu courant dafa laaj saytu moo tax ngeen def ci équipe de veille loolu également Senelec engagé wu na ba dina ko wut ay techniciens yoo xam ne ñooy nekk à disposition du comité d'organisation euh, yeneen secteurs yëpp nag mun nañ ko tënk ci ñaar benn bi mooy approvisionnement et contrôle beneen bi wàllu kaaraange ci wàllu approvisionnement et contrôle mooy ñu fexe ba marché bi ah produit yi mun a doy waaye tamit mu tombeek mu am ay njëg yu bees ñu fexe ba la ñuy jaay ci marché bi njëg loolu dëppook li nga xam ne moom la yoon bëgg loolu foo naa dinañ ci liggéey te incha allah ajjuma am nañ ci ndaje li des rek mooy demander service yi nga xam ne ñoo war a saytu ñu def sur le terrain saytu également marché boobu wàllu sécurité loolu c'est le cœur des métiers donc loolu mooy seen taxawaay muy fexe ba fépp foo xam ne ay mbooloo ñu fay dajee ñu mën a nekk ci jàmm sàmm leen également sàmm seen alal muy jandarmerie ci wàllu dem beeg dikk bi sur les autorités mais également sapeur pompier donc loolu également dina jël seen matuwaay ba lépp loo xam ne taxawaay ci màggal bi incha allah ñoo ngi def ko mais sapeur pompier également ñu ciy bàyyi xel ndax le 26 wala 27 juillet dina fekk ñu nekk ci wàllu nawet ñu intégré ci également évacuation des eaux pluviales balaa mu leen bett maanaam muy sapeur pompier CONAS na jël également disposition pour mën a comme au moins. libéré yenn yoon yi nga xam ne ñàkkul dina am ay taataan peut-être pour soo ko defee dem leen déglu gën a gën a donc ñu ngi ci tàmbali ci liggéey mais nañ ko ci intégré te boole koog également parce que un mois lay doon avant le grand magal de Touba donc teel a commencé opération yooyu moo moo liggéey li ci des rek mooy li nga xam ne tënk nañ ko fi préfet bu Mbacké dina ko ànd ak comité d'organisation bi di ko saytu donc di wax rek sëñ Cheikh Aziz foofu la ñuy daanale ñu ñaanal tamit réew mi suñu borom dem si jàmm mais ñaata ñi nga xam ne aussi ñoo ko ñoo ko jiite donc muy président de la république Bassirou Diomaye Faye premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak membre gouvernement bu Sénégal yëpp ñu ñaanal leen ndax ñoo nekk ci ba suñu borom defal leen ci mu nekk njëriñu askan bi yëpp ñaanal également suñu service service yi nga xam ne ñooy bokk ñoom liggéey bi te yàgg di ko def suñu borom may leen kattan boo xam ne dinañ mën a montal yéen bi nga xam ne am nañ ko pour liggéey ci wàllu màggal gi ak yeneen màggal yi nga xam ne moo moo nekk ci